waa Lutte Sénégal ñoo ngi leen nuyu leen sant di gërëm ñëpp di sant ñëpp man la Babacar Gueye directeur technique Kër Massar Mbooloo en même waaw formation bi man si laa bokk si fil si laa bokk en temps moniteur laa fii en même temps damay accompagner Bamba mu nekk élément boo xam ne nag li muy liggéey état war na ko jàppale war na ko teg loxo parce que booy yi muy jël tey booy yi am avenir lañ booy yi am civil lañ ay xale lañu te bëri nañ macha allah bëri waay boo xam ne il faut mu laaj jàppale parce que affaire bi diis na si moom trop formation bi nag formation bu baax la parce que formation internationale la garde rapproché te kuy ñaan yàlla xëy na lu international ngay ñaan mais doo yem si national kese. waa ñu bañ a jaay seen bopp. ñu xam liñ yor lan la si caractère si prix si waxtaan bañ a liggéeyati amateur di liggéey professionnel professionnel mooy ngay def contrat nit ki ànd ak moom liggéeyal ko teg ko ci yoon mu fay la nga am li nga war a am. loolu moo waral xaadim jug dugg si boo yi nekk professionnel parce que nervi mooy ki amul pexe xamul fu mu jëm amul lu mu def ñu ñëw utiliser ko loolu mooy nervi loolu mooy nervi koo xam ne amul pexe xamul fu mu jëm te mi ngi si benn descriptif di yëngu kenn jàppalewu ko mu jug dem defi nervi mais ku am ku la jàppale am ku mel ni xaadim mu ñëw xool làmb ji kenn tegu leen loxo booy bu dul làmb amuñu beneen liggéey mu ñëw taxawal ay liggéey yoo xam ne booy bu ñu si jaaree ay formation yoo xam ne bu si booy jaaree bu ñu génnee am métier. est-ce que mbër bu mu neex tey mbër bu mu neex nga am métier tey. parce que xaadim ñëw na te ñëw na ak alir bu mag te xaadim bërigul si mbartal la ah. gars yi bu ko poussé dina dem bu ñu ko puusul dina dem kon état na ñëw teel ko puus balaa ay bailleur di jógee feneen ñëw di ko puus. est-ce parce que bala ngay wuti bala ngay laax jaay da laax lekk ba pare da ngay wut sa biir dëkk. ba say autorité nag dëgër bopp bañ a ñëw nga dem tàllal loxo ñu si biti voilà loolu la quoi. man maa ngi yor euh, man maa yor damay def box damay def judo damay def lutte ñett yooyu yëpp dama koy def sama écrit dama koy def encore si affaire yi. maa ngi nekk Kër Massar Mbooloo. Kër Massar Mbooloo moo ñoom moo ñoom euh, non soq. mooy ñoom kan. mooy ñoom Drogba waaw waaw waaw Kër Massar mbooloo la nekk. état mi ngi seetaan nag gis nga ancien gloire yooyu fi jóge defal nañ ñu nekk Sénégal tey mérito wuñu silence bii ñu def muy waa làmb muy waa sport Sénégal parce que Sénégal sport. lamb si gën a parce que ancien gloire yooyu d' accord ñoo ngi gërëmaate de ay benn ay bénévole yu nekk si état ñoo ngi doon dem di jàppale ancien lutteurs yooyu mais état d'une part complet ñoo war a ñëw taxaw sargal leen ba adduna bi yëpp xam ne ñi am na lu ñu def Sénégal mais seetaan bi bëri na loolu tamit ñun ñoo ngi koy jooy te booy yi ñoo ngi leen xalaatal seen ëllëg ñu def leen ni ñu def ñooñu parce que booy dootu ñu fi def lu fi ñooñu deful woon loolu la quoi mais loolu metti la loolu ngi koy jooy état def si xaw a côté làmb état daf leen xaw a suufeel de trop. gis Sénégal ko daf ko war a def mais defuñu ko ñun ñoo takkal sa sunu mbër yi sunu anciens yi ay mbéy ay dubalees ñoo fi indi façon médaille bu ne ay morfaram façon médaille bu ne. mais kenn mësu leen takkal medaay ñoom ñoom indil nañ Sénégal médaille mais Sénégal takkalu leen médaille loolu lañuy ñuy jooy. te damay ragal ëllëg mu dal xale yi dafaa géy mii nga xam ne bàyyi na bëre tey rek indi na médaille Sénégal ak ñeneen ay Malal Ndiaye ay ñeneen. ay rëg-rëg mais ñooñu kenn takkalu leen médaille ñoom ñoo takkal Sénégal médaille des des na nag ñu delloo leen njukkal loolu la quoi il faut mu am. sans Double Less Balla Gaye il a complet Balla Gaye dafa ñàkk ñaar ñoo xam ne muy Balla Gaye numéro un ak Double Less euh, maanaam wéttal la ñu rek ne Balla egg na fi mu war a egg au plafond ku nekk roi des arènes weññeeku di maye di jël revance ak di joxe revanche non amatul looy gagné wala looy perte si làmb. waa mais bi mu koy jël papaam gaañoogul te expérience am tey may na ko mu jël ku nekk Balla Gaye tey mën na bàyyi bëre uuf ay booy di leen yóbbu expérience la loolu du dara. Papa Sow Siteu un grand la ak frère am mu nekk ñaar ñoo xam ne dañuy bëre ku nekk loo wax da koy def Papa Sow xam nga ñëpp kuy dund si làmb ji xam ne ne Papa Sow face Papa Sow feneen c'est la même Papa du arrière du reculer du delloo avance ku fekk ku seetaan combat am ak Baye Mandione ku seetaan combat am ak Ama Ama nga xam ne Papa Sow bis du rëy si moom kon bis mënta rëy si moom ak combat mbaa ak Modou lépp fi la ñu fekk. voilà voilà waaw Modou Lo Ama Baldé euh, combat royal la. daf ko téye première sortie mu ngi nii Ama Baldé yàgg ko soxla yàgg soxla loolu Modou Lo téye tey làmb moo leen boole walla supporters yi boole leen. parce que bu leen làmb boole woon mën nañ bañ a bëree mais supporters yee leen boole. voilà dañu bokk benn génération supporter ba pare tëkkunte bi bëri. te te ñu tolloo jamono mbappatandoo defandoo lépp xam nga gars yi naan ay âge ay nangam ñoom ñaan ñëpp ay booy lañ ku gën a liggéey ëpp gëm-gëm mën nga jël combat bi làmb kenn moomu ko ku yàlla àndal rek a fi nekkan ah, mais làmb amul kuñ naan la moo mën sa moroom kenn mënul kenn ku yàlla àndal moo fi ne nañ ku nekk na jël combat bi au sérieux def li mu war a def ba bu jour baa bu la kenn mere a fi nekk daanu wala nga daan machine boole wu ko si de ñaar laa la wax. non Ama Baldé bu daanee dina nekk surprise bu rëy parce que nekkul ci kaw Modou loo tey mooy favori parce que moo téye roi des arènes bu ñuy wax logique gu làmb Modou loo mooy favori parce que moo téye roi des arènes képp ku téye roi des arènes di bëreeg nit mënoo jox kooku favori mënta ne moom nga mën a jox favori na góorgóorlu xam ne ki muy bëre dafa mën bëre te mëne na nu ne Modou Lo ku ne mënul bëre a nga xamul làmb mëne na nu ne te lii Balla Gaye du Ama Baldé. Balla Gaye gay Balla Gaye Bombardier jeunesse la ak mag xam nga maa ngi leen koy wax chaque jour dama seen di bëreeg Bombardier wax naa leen xale la ak mag Bombardier bi muy bëreeg Modou di ko daan dama ne xale la ak mag buy muy bëreeg Balla tamit xale la ak mag mais détermination yi nekk si Balla Gaye daan lu daan Tyson war na daan Bombardier xam nga lu daan Gris Bordeaux war na daan Bombardier affaire bi loolu la kon Balla Gaye na góorgóorlu te na jox nag Bombardier cër parce que mbër la boo xam ne du tiit ragalul te du arrière lii ma lay wax seetaanal vidéo yëpp mosoo ko gis du tiit du ragal te mosul arrière. Tafatin Boy Niang. waaw Tafatin dafa bëri lu muy asaaloo làmb maanaam dafa mekk dafa mel ni ku ñàkk ay.

parce que man li ma bëgg dama koy imposer sama écrit man mbër du ma la bàyyi nga wax. man maay décider lu am man maa koy yanu. man su ma yóbboo mbër mu daanu man maay dem écrit ba toog woote réunion ne leen maa ko daaneel parce que maa ko sant. te noonu la technicien di mel day nangu defet waaw na assumer ay responsabilités am tafaatin nag loolu rafet boo seetloo bisu rëy yëpp da ko ñàkk pour lan te am na bis yoo xam ne du yoon mu ñàkk ko ay lu ndaw la rek loo xam ne dañ koy réparer rek mu dem jël combat bi. boo seetloo bis yu rëy yëpp bi mbër mi taxawee arbitre di waaj a soufflé ki muy bëreel daf ko jox cër mais bi combat bi demee une minute quelques secondes ngay gis ne kii indiwul dara. day miime rek indiwul dara gars yi appliqué si koom daan ko seetaanal contre Balla Gaye Balla daf ko xaar tuuti xam ne kii indiwul dara mu appliqué daan ko Ama Baldé da ko xool xam ne indiwul dara mu fiir ko dem. làmb waaw jàngatu làmb nag làmb mi ngi soox. te li ngay merci euh, li ngay laaj nii am na ñu toog si tele yi duñ ko laaj parce que xamuñu làmb naa la wax tey ñiy def émission làmb yëpp à gaañ boobu nekk wal fajiri kese ngay Pape Aline moom ngay toogal mu wax si làmb lu la jaaxal wala mu laaj la question bu la jaaxal mais ñi si des ñëpp dañuy far ak di tagg mbër. ak di way di way nit ki pour am si moom dara ñun nag dara nekkuluñ si mais làmb ku ne la sooxewul day wax lu ko neex làmb ngi sooxe benn tànk làmb benn tànkam aju na benn tànk lay sooxe li ko sooxe loo nag du kenn ku dul état ah. parce bu ñu demee ba mbër yi ay jaambur leen jàppale léegi ay civil jóge Europe ñëw téye seen xaalis di inservice si mbër yi pour ñu nekk ay garde rapproché état ngi seetaan te ñi leen di ñi leen di formé dañ leen di fay jëlee leen si état fay leen ñu ñëw entraîner leen ay GIGN ak ñeneen état war na bàyyi xelam si loolu te xoolal tey promotion bii nga ñëw tey di ko jël xam nga ñaata lañ quatre-vingt-sept personnes te bii di ñëw moo koy ëpp parce que li taxawaat pour bokk tey buñ ko tegul loxo rek affaire bi dina diis si moom de ak ku ko mënti jàppale. ak ku ko mënti jàppale même bu si réglé problème mu boppam doo attan li des. mais ñëw promoteur mhm. mhm. bu la. wax damay ñëw. benn promoteur boo xam mbërëm promoteur sax moo gëmul mbër ma wax la ko tey promoteur xaalis la gëm soo dàqoon bëree si Sénégal te doo mobiliser xam nga mbër buy mobiliser rek am nga moyen. mbeur bo gis muy fessal stade bi am na moyen so dakon bëree si te do mobiliser promoteur kon promoteur dundulul lamb. may wax ak yow ma neubuma sama kanam sen njariñal bop khalis mo len duggal ci lamb dañuy business ñom lamb business lañ def faale wuñu kenn ku dul ko am tour mbolo top lu ñu teggal la stade bi fess ñu mën ci gis sen bop kullukum ku dul dunduñu sport sport biñuy wax ci lamb nga xamne ne athlète bi mo len neex ñoom dunduñu loolu. dama gis ministre des sax jàppalewul làmb jàppalewul mbër yi mbër yaa ngi nii toog fu ñu ko tuddee ñu tàcc mais jàppalewul leen xam lu tax kaas pour ñu ubbi làmb du jàppale làmb dangay kaas pour booy wéeru fu dëgër ëllëg yow boo demee bàyyi fi apprenti bu leer booy yi xam ne seen wéeruwaay dëgëroon na ku ñëw day état continué la. mais euh, comme li ba nga dégg-dégg ñun làmb mbër bu fi taxaw di leen tagg ah boo demee si mbëri si suuf ñu taxaw saaga leen te mbëri si suuf ñu ëpp doole mbëri yi feeñ si télé bi di wax ñun dañu am sens téye micro taxaw si écran kon dañu war a waxaaleel ñi si suuf mais ñun waruñu seet ñi si kaw rek ñuy yëkkati suñu bopp di yokku niveau sànq yaawu jaal dafa taxaw sawet wet ma ne ko bu la daraja ak tur. yobbu fo xamne ne da ngay fàtte sa nitu dem nit lum la lebal dee ko fàttaliku mais du bul fàtte ndax tay télé yi wër nañ la radio yi wër la genn télé yomb la wax yomb la ñu dégg la rek nga bëgg a sa nitu dem du dëgg. lamb daf ko bëri dama ne la xolal promoteur bu ñu ci état état jappalé len mbeur du ko gis kon promoteur lu muy jariñ mbeur ay ñun ñoy jappalé jappalé wuñ kenn. gis nga boy bu ñu ubbiwul làmb ji ñu def leneen mais ñom amna ño xamne dinañ sonu lool. maay wax ak yow dañuy sonn lool gars yi nag waxante dëgg bi dafa des xam nga benn mbéy gay feebar ay ñetti ministre dem di ko jàppale loolu interpersonnel la relation yu mu amoon ak ñooñu la mais état